Cheikh fecc na way na léegi bëre moo des ñu ngi noon di ko sotti ay butéel Cheikh Cheikh maa ngi lay ziar Cheikh soppeeku na waaye je na Cheikh Babacar Cheikh da ngay soppeeku yi ma Sénégal yaa ngi dégg woy bi Babacar waaw waaw kor dek ñoom do lefe so ko ma Sénégal ñoom séeréer jagul ñoom ina jagul ina jagul jog tos wul kii di wax ak yow wul kii di wax ak yow mooy wax ak yow xam tous dara. Cheikh soppeeku na de. tous carré Babacar mooy wax ak yow dara du xew tous. tous. mais zéro soppeeku na de. joxos. zulum salam zulum dara du xew. dara. waaw naada. waaw luy xew. tous. Cheikh kuy daan. man. noo koy daane. door mu wàcc rek. fii mujj da ngaa dóor mu daanu. comme dab rek. incha allahu rabi mu daanu. incha allahu rabi bëre bëre tey. Seex fa ñoojoor. borom ñoojoor a ngi. hey Ada. borom waa kër Garga Mbossé.

yëfu tapete ngay def yëfu tapete rek ngay def loolu du yëfu góor li ngay def defal yëfu góor moo gën ba at bi sifle di nga xam ne lépp dëgg la naa la nokk maa la gën a doon bandi fëpp bi amoo si dara combat bi amoo si dara guy ci def ay yëfu waayu Ndongo Lo à gauche Cheikh Tidiane à droite Ndongo Lo pied droite Cheikh Tidiane Niang cey bi combat lamb ju méttee métti bari enjeu lamb ji neexee nga ne daa xaaj tey parcelle ñaar Matar soufflé na ñu ngay lewaato ndongolo Cheikh Tidiane Niang yéen ñi suivre Equivox TV maa ngi leen di bëggee sëñ Mbay ca kër mbir waaye nekk ca Italie mu ngi suivre ay mbay ak defal lu woor ñu ngi lewaato loxo jógagul ndongoog Seex Tijaan cey ji làmb ndongo loo ngemb bu weex Seex Tijaan ngemb Lagos ndongo sànni na droite ndongo dugal na droite génnaat dugalaat na droite ndongo yónni na droite tam ñaari yoon mu dem ñaar ñii ñaar ñii mbay yi ki ne jaar képp kuy suivre Equivox TV Babacar kontaan na ci yow waaye xule foo mu nuyuwaat ko ñaanal ko yàlla mu gën a wér xale bu yaru borom ñooro xule soppey waali balaago sekk xule taalibe Baye Niass xule Equivox TV xule droite ana Elas Diouf borom pasi séeri mama maa ngi koy nuyu di nuyu waa pasi Elas gos demul de gomi say filmé Babacar ay wax mbaya ngay way moom mooy tëgg Cheikh Tidiane Ndongo looy bëree mataaray arbitre mbay yi ki nee tëgg stadium Iba Mar Diop la amee samedi la tombeel 3 juillet la tombeel 2021 bu ko kenn jaawale mataar na leen bëre leen e loolu neex na cey làmb xeex Ndongo Lo daa mel dafa bëgg a xeex ak Cheikh Tidiane Niang a ngi koy gëdd a ngi koy gëdd ah Cheikh sànni na ko góos waa kër Cheikh yooku nañ eh jàppante nañu danañu bëre ay bërekat lañu oh Cheikh Tidiane Niang waa pop pop pop pop Gomis xool mbooloo mi ay Gomis bi jël rëy waay Cheikh Cheikh ngay jooy bul jooy bul jooy bul ko Ndioy félicitations. Pape Ndoye. félicitations Pape Ndoye lu la booleeg seet. kii moo génn Lamba Académie ñoo ko yoroon Lamba Académie. waaw waaw waaw moo tax ñu ñëw topp ko ba fii waaw boobu ba léegi moom tamit bàyyiwul waaw lu mu xewle rek ñëw na ci ñun ma ànd ak moo naa ñi ñoo ko yoroon Lamba Académie ci ñun la génne champion waaw waaw jaajëf jaajëf waaw Cheikh ma jógee dama sori sama supporteur yi bu ñu jógee dama sori barki Seydina Mouhamed sama supporteur yi waa ñoo ñor dañ trois 3 juillet 2021 Ndongo Lo bu saa Sanjambur Cheikh Tidiane Niang bu Dóor Dóoraat combat bi nag daamel ni boo xoolee xoolante bi wala ravante observation bi yàggul parce que nag bi loxo yi jógee jóg jogaat bi ñu dajee ci bëre yaakaar naa jël bi ko Cheikh Tidiane Niang daan loolu moo lay wan ne Cheikh yaram bi moo gën a nekk ci bëre donte Ndongo Lo ku mën a bëre la waaye gëj a bëre ak na ciy defet des fois mu yàq sa boo xoolee loolu feeñ na ci biir bëre bi ndax Cheikh Tidiane ni mu ko daane dafa dafa doy waar jël bu rëy rëy rëy da ko tuur ba mu tëdd jaaxaan jaaxaan nag defe naa ci làmb soo ko defee moom xam naa ne moom ah mooy daanu nga waaye làmb ji nag su neexee dañ koy way di ko tëgg bu neexee fii ki koy way kii la maa ko tudde la voix d'or mbayang lum parce que nag dafa mën a way te day yëngal nit ñi macha allah yal na ko yàlla fal cat mbayang looy wax ñi lay sifir ci kontaan nañ ci tey waa làmb ji bëggati nañ ci yow. Babacar ziare naa ñëpp ziare waa Equivox ziare wa axlu làmb ziare sama mbokk séeréer yi ziare képp kuy tëggkat képp ku artiste képp kuy promoteur ziare ñëpp képp kuy amateur aussi ziare naa ñëpp màggal ñëpp jox leen seen wàccuwaay. soo yooxoo ñëpp yëngu macha allah yal na yàgg te sax. amiin yaa rabbi rek yàlla suñ borom rek lépp ak borom mbaar mi la rek. kese kontaan ci bëgg ci yow bu baax Cheikh Tidiane loo ko wéyal ba mu jooy tey. ah Cheikh Tidiane comme niñ koy defee chaque jour rek Cheikh moom ndeysaan woy naa ko ay woy yu bëri waaye. daa mel dugg nga ak ñoom moom ñoo joor tey de. te alxuraan dugg nañ ñoo joor genn dugg fu ne. am na solo. <laughs> ah kontaan ci yow. merci. di nuyu sa troupe bi yëpp. ah kay ñu ngi lay fay maire 10 ngi ne toog. waaw ñu ngi fay bu baax. waaw borom la yu rafet yi maire 10 ans. <laughs> yàlla rek ginnaaw bañ sant yàlla julli si yonent bi sant suñu ñaari waajur sant yàlla bu di gërëm amateur yeeg promoteur rek mbër yeeg ñëpp bàyyiwuñ ma kenn waaw bëgg ñuy bégg rek ñoom seen yite seen seen seen yite rek moo ñu sonal ñun ñoom bu ñu bëggee rek bégg nañ barki maam Cheikh Ibrahima Fall waaye maa gën a bégg gannaaw bi borom Gaye Ndiaye na seen jàmm yàgg macha allah waaw Gaye Ndiaye maa fierté rek Gaye Ndiaye maa fierté fu ma mun di nekk si àdduna drapeau Gaye Ndiaye laay si laay recevoir moom ngay représenté moom laay représenté di sant nag père Bour Gaye Ndiaye di sant Pape de di sant Baye Barham nga xam ne sama papa la la maa ngi sant ñëpp bàyyiwuma kenn ñoom Kareka ñoom Babacar Diagne bàyyiwuma kenn maa ngi sant gànjaay yëpp bu ma am man tamit maa ngi sant waa ak yaay yëpp fa ma dëkk ca Bawal maa ngi bëggee ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di nuyu 100 pour cent Babacar bi gis naa fi Jiga gis naa fi Pablo gis naa fi Cédric Marceline Ndour yàlla fa saaxoor maa ngi koy bëggee di nuyu waa Bitanti ah waa Zowal ñëpp maa ngi leen di bëggee mais daal di ñaanal jàmm ñëpp di wax kani Sénégal yàlla na fi yàlla def jàmm barke yonent bi sallallahu alayhi tey nag lii ma sol xool ko ba ci kaw ba ci suuf idaali ñi ngi borom ñi ngi production moom moo ma ko jox barki démb ah gomis loolu la yàlla àllarba bii nu jëm nañ ci bàyyi xel la set komba yu neex a neex a neex bokk na ci grand combat ba mooy Ronaldinho bu tëngee technicien bi ak kan ki nga xam ne nii moom moo di ah xale boobu dëkk ko Colobane ñu koy wax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 bu bëggee ci làmb ji barke yow mbal xiyaam la ko baal ku yëg da ngay ñàkk